pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça léegi. Ah. waaw léegi bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du jaay kër gi miraas bi quoi du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a bon waaye ki ne looy def si saal bi. yow sa affaire réewoon na yi ma defoon da nga foog dama ko fàtte fàttewu ma ko de yow sax yaa Umar bàyyante woo leen woon yow tàmm nga buñ la gisee ci kër gi rek affaire intérêt moo tax xaalis moom foo ko dégg rek ñëw nga. bonjour lui c'est mon ami quoi, il veut travailler ici quoi, il cherche du travail quoi, n'importe quoi. Nhà nhóc mỏi có tan ta xéo này, nó có đang mua phải, có mua phải mua bạc hòa, mua phải, và giờ ba mình mẹ rồi ăn nhậu một khi giúp bài hát hòa, và hai mình mới phải đập bắt hòa. Ôi mẹ xả hoa, nó hơi đừng đấy, nó hơi đừng. Và nó liên quan đến mình vài của il est passé par là, mais je ne pouvais pas lui donner du travail vu qu'il ne comprend pas le français. noo saay du am problème man amu problème man damaa jub du ma jël alalu loolu moom jarul sax nga wax. dangay di quelque chose e, rek après moi je vais apprendre à parler français quoi je sais que si mon ami il se travaille mais il parle pas français quoi. non saa yi loolu ñenn ko koy wax naa ne fi France la man xam naa ne fi France la waaw nit moom jub rek waaw tegu si yoon bañ a def benn affaire xam naa loolu man du ma tooñ du ma tooñ waxuloo. oui s'il voulait nettoyer les toilettes, bon. kii moom doo mar c'est man damaa ju liggéey ba pare rek wéeru noonu rek far jàppanteeg ay nelaw ah damaa tiisi nelaw jóg xiif laa def nag ani bi ah an ñoom yaay ñoom foo na leen jàpp waaw waaw waaw mais duñ génn leen yuy toxantu yu nelaw yow nelaw yi moom gaaw na waaye mel de fonde togg man si laa dugg ba sonn rek toog ni yàpp sama njàmbur fonde ah fonde baax na la dugub la sa ñoom yaay gis nga boo nekkee sa kër boo demee ma takk jaay nekkee sa kër da ngay am ful la fan yi dama leen aj ni duma joxe dépense waaw nu lijjanti leen ko lijjanti nañ ko année kii bi bi fan fan la ma xeele ani pot bi may wax ak yow dee ma faale boobu ba tey maa taxaw fii di wax a yow faale woo ma sax ngay xool fële du lii laay waxati sa réewande yaayee bañ ma faale boobu léegi maa ngi taxaw fii di wax ak yow faale woo ma waaye demal gone gu réew moom mag bu réew doo nga koy lijjanti nañ dem rek man moom du ma la bàyyi ci noonu. non saa waay man xam naa ne yow borom baax nga yow borom baax nga di nga toogee nii jàpp sa a croiser am raani ma xam naa ne amoo problème. Michel xaaral ma dem xaaral ma dem ko mënoon noppi mënu tëcc làmmiñ bi nga noppi mu liggéey ci lay jóge xaaral ma dem ma waaw booy yow tamit bagage yu ndaw yi mooy dugal dama koy dugal nii rek pour mu xam ne kii bëgg na dama bëgg rek moom mu xam ne man bëgg naa liggéey quoi. très bon même très bon même gën a liggéey ko sooy rek après il est sérieux il est il travaille bien. jaajëf waay jaajëf kontaan naa de kontaan naa si yow de yaa ngi koy seere de. oui ma wax yi yaay na waaw wax dëgg na la mais fu nga yàq duusi ya fa yow dégg français. gaa yi fii restaurant la boo koy kër ñoom ñooy jaay ma ginaar waxaa France boo ko dégg loolu tax dañuy siy juusi ci jaxase juusi ci jaxase juusi ba dégg France. xelil père yow mère yi xelil luñ la de waaw parce que nee nañ yaa wax doo joxe dépense xaw ma léegi ñoom ñoo koy lijjanti seen bopp mais yow bokkutoo si reer bi de <laughs> mère génne nañ la si añ beeg reer bi de comme joxe too kay léegi ñoom ñoo koy joxe ñoom ñoo koy gérer seen bopp. waaw man mii sax mooy loolu du ma jox sama ñëwu bët rek. nga ne la yow ba nga ne ma ne doon doon réunion ni ma kii eh, kii ah ay ay ay Omar yaa bu nu waxee loolu nga waroon bañ di sama papa ñaata at ah les unités yi jox ngeen di lekk eh, eh, ni moom du lekk fu nga nga bañ ah bu bañee sa bu jëlee sax nga grave yooyu dafay ne du ma lekk tant que bi lekkul ah lekk bu suur abandonné sa baay. ah père sa problème ak mère yi seen problème la de man problème boobu dugguma si de su problème lekk <laughs> père man dugguma si problème lekk père waaw xam nga boo mënu yor sa bopp <laughs> diri moom doo nangu foo sa <laughs> doo tàmm foo sa ndong ti dang tamit du may diri rek père waaw yi ngay seere leen ko rek nga bàyyi ma ni ma nekk man ah la nga ah papa loolu sa problème la loolu Omar nga wax sa waay ah léegi ah guerre nay saf mondial guerre nay ah, gi sama kër la sa néeg bi nga yor na ngay fay sa weer trente mille fay waaw sa yaay ñoom ñëpp dañuy fay waaw ku fi tëdd leen ay fay waaw courant bi ngeen taal leen fay ndox mi leen fay waaw guerre tëdd fa heure bi ah, xiif booy bëgg dee léegi fan laay génn ti jëndi eh, eh, lu ma lekk ah ah génn nga lu ma lekk wala sama kii bi na koy fay sama néeg bi na koy fay location. booy yow sacrifice nga wane si sacrifice ba quoi booy yow woon naa la bu yàgg bëgg ma waxee ne ma yow sacrifice wax naa la man douche du ma laal ah te tubaab yi fii mooy noonu yéen biir kër yi nga bëgg ma dugal waaw liggéey yow dootoo doon liggéey yow tànn liggéey bi liggéey bi xëy na kay baax na waaye yow loolu na fay la. booy danaa ko jël ba sama soloon liggéey mais contrat moo ko si lu leer du ba si yàgg de du ba si yàgg un mois rek baax na si douze douze moom mooy man ba ne koy toog si douze si di di nga xëy na dafa sax defi nga xamul ne. pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. messin bi nee na bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi nag bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñu jaay kër gi miraas bi ko du ñu jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. médecin bi nee na bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi nag bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñuy jaay kër gi miraas bi quoi du ñuy jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a bon. pharmacie bi jënd ak garab ba ñëw fekku mag bi xanaa koy dox ba feebar nga mën a toog. messin bi nee na paa bi feebaram bii mooy loolu quoi bu dundee weer si lay yem. yow dara jatu la tension rek moo la jàpp mais ça va léegi. Ah. waaw léegi nag bu deewee ma ak sama rakk bi waxtaan nañ ba pare du ñu jaay kër gi miraas bi quoi du ñu jaay kër gi léegi daal yow bul wax kenn dara waaw bàyyi ma gën a feebar gën a bon waaw waa Omar boobu ba léegi la ngi lay laaj numéro Issa nga may soofantal xanaa numéro rek yow mën naa joxe.